sinon bu ma mais mais maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay moom fils. mais père bien vrai que ni euh, Diène Kaïré mhm. champion la min na bés bu mag. waaye bés bu mu war a bëre. le 25 décembre dafa wutee ak bés yu bëri yu mu bëre. ndax Zarko ku ne xam na ni adversaire bu doy waar la la. Mhm. ci bëre bi ci xeex. waaw dëgg la xam nga li tax mooy spécial. Diène dafa jóge ci combat bu rëy rëy moom Modou Anta. gars yi war ko war a wér moom aju ko te li tax ñu aju ko ñoom ñoo ko xam am na fulla am na fayda am na jëm ci géew te xam nañ ne neexul deret pànk la Zarko nag dañ koy remercier waaye nag bés la parce que moom dafa def retour gagnant daan ñetti ñetti adversaire yu euh, ñetti adversaire yu am solo moo tax combat bi combat jànq la man comprendre naa loolu moo tax li ci war yëpp def nañ ko entraîné nañu physiquement mentalement moralement préparé ko pour bu dimanche mu jëflante Zarko ñaan yàlla ñu may am ndam ci kàtt ci kawam incha allah. su ma xoolee Zarko ci bind bi. xool Diène Kairé ci bind bi. Mhm. ñu ci bëri dañuy yaakaar ni ah Zarko moo koy ëpp doole ñaari yoon. Mhm. taxawaay beeg ci ko màggee presque huit ans ëpp ko doole sport eh, bëre doole bëre xale il faut ñu bàyyi loolu xel te Diène dafa dafa bëgg am lu moo wane te waneegu ko mais bu ñu ànd ak ndogalu yàlla bu dimanche. ñu xam ne Diène du du du cuune ci bëre. ñoom ñaar bokkuñu ay ndoxtu bëre. non bokkuñu ndoxtu bëre dox doxtuñu ndoxtu bëre Diène dafa mbapat mbëru mbapat la dafa mbappat ba taxaw ñu waajal ko lépp jox ko militaire ñu waajal ko ci xeex ak lépp dañ ko préparé mais boo gisee yoon wi sax yéen xam nga gars yi teggi mais xanaa bu ñu yàlla dimbale bañ daan sargoo xanaa. dernière question mooy ci sa carrière. waaw mës ngaa taal gaal gi comme gaa yi tey tey tey ko jëm defee. waaw dawal gaal gi. gars yi di ko xaar mu ñëw teer li c'est la première fois am si Mbédioune boo xoolee public sax mosuma ko am ton moom am na sas waaye man it am naa sas parce que it lamb moo toll foofu Ndakaaru Medina dafa am lu ñu war lu ñu war a wane te ñaan nañ yàlla wane ko dimanche incha allah merci. mobilisation bi ak fair play bi loo ci. lay lay la mobilisation dimanche xam nga lu ñuy wax de waaye Medina Ndakaaru kenn du fi des. ñaan yàlla ñu bëri ko ci fair play rek. beere <laughs>